nuyu di la gërëm Ndeye Awa Sow madame Guèye di am mbégte contentement bu mag bu fekkee ne jotoo ma sama numéro soxlu nga koy jaaral ci mati ndax dañoo jàppante spécial dédicace à Stéphane Badji jour à Norvège ma koy nuyu waaye tamit di nuyu bu baax ki nga xam ne mooy Amina euh, Fall doomu soxna Bintu Kare di nuyu tamit Marietou chéri euh, Adama Diallo ak Rama chéri Omar Anne ñoom ñëpp ña nga ca France ñuy am mbégte contentement ci loolu kon nag vraiment mbir gi kontaan nañu trop tamit ci Ndeye Boolo nekk depuis Somone euh, ñoom Thiané Sarr Lissine Fall nuyu na ko ca Nord Foire ak Fatou Seck ca Paris ñu ngi koy nuyu léegi nag dañuy dem seeti Amath Dansokho bi nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne bi Macky Sall waxee nañ dem ca rajo yi rek ak télé pour attaquer moom fekk na mu jiitu ci bu yàgg. Dansokho danse koto koto boole koto ma ñamaañoo ñu koto. xata boole xata boole xata ma ne maa ñooñu xata xata boole xata ma ne maa ñu xata ñu xata boole boole xata ma ne maa xata may leen ma xata boole xata ma ne maa ñooñu xata xam nga loolu lu muy tekki mooy ku mën def ku kon ki man bàyyi ko mu dem xoto boole xoto ma ñamaa ñoo ni xoto barki ba tey yéen ma fii ñaata yoon laa ñëw ci émission Kouthia Show mënuma ko compter chaque jour ma ñëw wax loo xam ne pour opposition bi ñu may ñu jàmm Macky Sall du du nit ku bon nit ku baax mooy Macky Sall ndax ku fekk ay mag yoo xam ne dem nañu ba seen doole jeex nga leen kaay jege ma kooku bon li am ni barki dem ma ndogal la buñ ko politiqué Idrissa Seck laay waxal ndax man Ablaye dama ko classé Ablaye dama ko classé te bu moytu danaa wax loo xam ne moom dana noppi na teg dama ko classé sa Seck nag laa bëgg mu bàyyi Ablaye na bàyyi euh, Macky ndax Macky xale la boo xam ne day émerger Macky kenn du ko téye day émerger li xale naan Macky day dem waaye Macky kenn du ko tey day bu am yar am teggin lii moo métti balaa ngeen xam njëriñu Macky mu mu mu mu jóge fi bés bu mandat mi jeexee ñaari mandat yi jeexee ba keneen ñëw ngeen xam ne Macky baaxoon ci ñun. Macky day dem day dem kenn du ko tey day dem. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw may leen ma. ma ne duñu ko duñu ko nangu bu kenn nekk fii di wax ne ay dañuy menacé menacé wu ñu kenn Ablaye na bàyyi li muy mag du wootee caaxaan nañu ko bàyyi li mu bëgg mooy ñu bàyyi doomam kenn du ko bàyyi la justice est là pour tout le monde nañu kenn fat Macky Sall nag duñu ko seetaan mu mu mu ci ñaaw ndax ñun ay saraxu la ne fii ba Tamba su ma jógee nii Kédougou laa i baba foroho sana foroho dorowa mane kani makisalo ñugore ka ñohoho pama fohe makisalo wuna borso manite a fohoni duwana haraha mana duroka haraha makisalo wunoko ngude ana kusoro kani nani opposition Abdoulaye Wade Idrissa Seck nambole kawo muje kon mu nga neexee ne xoto ni xoto boole xoto ma ña ñoo ni xoto ma di boole déedéet bu leen jaxase way bi ni xoto maki bombe maki ñaña ñoo ni xoto maki bonde xoto maki bonde maki Sall jàppantewul kenn jàmm rek lay def accéléré nag kenn moomu ko ni mu turee ko waxoon waaye dafa accéléré mu can ñun nag dañu koy jël accéléré mu émerger kon on accélère.